waxal na tamit ne ñaari nit fu ñu dendee kii fonk fi kii fonk màggal gi kii bañ koo fonk ka fonk màggal gi danañ gis lam rawe ka bañ a fonk màggal gi euh, mu ngi leen koy fàttaliwaat di leen fàttali tamit yéen ci daal def yëpp kenn ku ne tamit xam na mu ko daa waxee nee na képp koo xamante ne nii sama mbégte sa mbégte la bis bi bu ñëwatee nag ma koy màggal